jaajëfal alxaaji sëriñ si Sylla mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ñaanal waa almisbaax yëpp barkeeg tawfiix na daar ji ni ñu koy baaxu ji defee fajaru dimanche mooy ànd ak yéen ci min noo si sunna min ku si sunna di jataay yoo xam ne ni ñu koy misaale mooy trésor la bopp salawaatullahi salaamu alayhi moo ca dencal xeet bi lam leen ca dencal nga xam ne bu ñu ko jëlee day nekk ci ñun benn tarbiya benn éducation benn formation bu am solo macha allah ñu koy am dimas bu jot ci waxtu wi bind bii nu weesu ñu ngi tolloon ci taxawu jirim bind bii weesu ñu ngi tolloon ci taxawu jirim ak yi ci aju wooyu yépp ci kan mooy jirim jirim bu góor bu jigéen ñu yor jirim te néew doole ak yu ni demee ndax jirim papaam dafa guddee àll ndeysaan mas naa dégg benn woykat bu ñuy wax kinne laam dal na ko yàlla yokk wér <laughs> mu ne bul gaawu sëngéem seet tet tet loolu la tudde woon woyoon ndeysaan bul gaawu sëngéem boroom kër mu ne lay bu sëngéemee rek àdduna tukki borom kër bu sëngéem beneen affaire la waaw ndax mu ngi noonu daal nañ yem foofu balaa bala ñu fi yàq jataay bi ala kulli xaal bii weesu ci taxawu jirim lañu nekkoon tey dañu ñëw ci beneen tomb ba am solo ci wàllu min ku nu si sunna mooy defarub diggante islaahu daatil bayni mooy defarub diggante defarub diggante mooy diggante bu jàng bu ñagas ñaar ñoo xam ne dañoo wut loolu lañ tuddee islaahu zatil bayn léeg-léeg diggante jëkkër ak jabar lay doon islaw zatil bayn léeg-léeg diggante nit ak waajuram lay doon islaahu zatil bayn diggante goro ak goro lay doon islaahu zatil bayn léeg-léeg mu nekk diggante politiciens yi militants yi ak secrétaire peut-être wala secrétaire yi seen bopp islaahu saakil bañ léeg-léeg mu dégg nekk diggante ministre yi léeg-léeg mu nekk diggante diggante député ak moroomi députéem léeg-léeg mu nekk diggante directeur ak ñoom yilif fu ne la fu ne la réeroo boobu di am diggante bu ne dana fay am diggante bu ne dana fay am waaye jóg sol saw dàll dox ca diggante ba pour defar ko daa am solo waaye nit ñi léegi ñi koy def bëri bariwuñu bëri satil islaaw zatil yëg ne diw ak diw am nañu problème nga sol saw dàll dem loolu moo daan defar diggante bi sunu dëkk càlle waaw sunu dëkk càlle càlle su mag ñi ma na yëg ni diggante diw ak diw neexut mag ñi danañu woote daje ci tookurub nit defar diggante ba ku ne dem sa kër te waaye dëkk bi duñu yëg ñun suñu suñu dëkk loolu la fexe woon dangay ngay jékki rek seen menn mag muy dem nga toog tuuti seen keneen dem ba ñu tase ci tool ab tool maanaam tookur muy muy jardin ci kër gi wala boog toolu àll bi toolu kër gi laa bëgg a wax bu ñu tasee bu ñu tasaarooyee rek yëgal na defar nañ waaw diggante jëkkër ak jabar diggante ñaar ñu béjoo wala yu ni demee defar yooyu dafa am tuyaaba lool te nit ñi war cee bàyyi xel man mii di wax ak yéen ñi déglu ñu ñu defaat ko suñu yëf waaw ñu defaat ko suñu yëf waaw salaamu alayhi nag jàngal nu ci nan fexe ba bu mu am maanaam ñun man mii di wax ak yéen ñi wax nañ fexe ba suñu diggante kenn bu mu am ñagas ñagas ba ñuy jubóole loolooy li njëkk suñu diggante kenn bu am ñagas ñagas ba ñuy jubóole bu dee jëkkër na fexe ba digganteem ak jabaram buñ leen taaj di toog di wax loolu ku ne mën na ko ndax koo munta muñ danga koy muñal bu dee jabarit na fexe ba diggantee ak jëkkëram bu leen kenn taaj di wax ndax taaj di wax day day wàññi ay point ci diggante ñaar ñuy sëy te su wàññi koy point point yooyu ñu wàññi ko day wadd seetaanee ko jël yokk koy point am waaw seytaane mooy jëlul yokk koy point am te moom point am yokk jigunu jigul penc bi waaw point seytaane yu yokk jiguñu jigul penc bi waaw moo tax ñaar ñi ku ci nekk rek war a bàyyi xel ci loolu bu dee goro yi goro yu góor yi ñaar du am problème ak seen goro yu jigéen maanaam waa ji dafa takk jabar indi ci kër gi problème bi ñaare daawul am diggante papaam ak jabaram toujours problème baa ngi am ci diggante yaayam ak jabaram ndax yaay de jigéen jabar di jigéen te ñoo maase <laughs> Baye Mbaye moo ma daan wax ne sa soxna yii bu defe ne sa yaay leen mag ma ne ko déet waay mu ne waaw man mu ne man nag maa leen mag waaw mu ne bu dee baay baay moo mag sa jabar yi ma ne ko waaw mu ne waaye bu dee yaay ñoo maase waaye loolu bët bu set day feeñ ci pénc mi ndax yaay juy bijoog jabar yi doomam waaw nga xam dangay am sa doom mu am jabar indi ci kër gi bu toggee nga ne neexut bu fóotee nga ne situt léeg-léeg sax mu jaral ko gedd togg gi toggal boppam lan nga bëgg loolu bàkkaar la lan nga bëgg di gedd togg gi di toggal boppam buy fóot bu laajee fóot bi nga ne ko tilimut wut ab fóot ka mu lay fóotal bëgg sa jëg sa sa sa sa doom ji bu joxee dépense nga jël ko te pàppaay sa doom ji moo daan joxee dépense teg ci sa loxo tey nga bëgg biitam ñu teg ko sa loxo noonu non nga toogal ci kër gi te neex deret ndeysaan toogal ci kër gi te neex deret melal ni mercienne <laughs> neexal deret melal ni mercienne cey waaw wax naa leen ne mercienne yor goro xam naa bu bu centre bi àggee foog ma indi mercienne muy def kuuru kuuru yor goro <laughs> mercienne kero ba ndeysaan ngeen baal ma ci misaal mi waaye jàngale moo koy indi doom ju góor ja génn génn àdduna waaw jabar ja ji ba noppi ndeysaan mère seen daal di koy takkale bagage mu ne ko mu ne ko tànta mu ne mu ne ko déwuma fenn ndeysaan tànt ji xëm waaw nun ña doon dox ci diggante ba nun ñëpp nu xëm ndeysaan kenn mësu koo gis rek déwuma fenn mère seen mu ne mu ne ko moo fa amoon lu ma naqari kere ba diw génne àdduna ci ëllëg si lay ñibbi mu ne ko waaw mu ne ko li mu fii dund mënumaa dund lu ko dàq sama kër yaay au contraire sax leneen laa fiy dund mais seen fii laay toog ah mu ne ko waaw léegi nag yaay yaay xam damay am jëkkëram du ma ko am loolu moom sa mbir la waaye man fii laay toog ndeysaan doom yo jooy ndeysaan mère seen si tët tët tët mbokk yi islaaw zatil bay ni war naa jaral nit mu jóge dakaar ba cël ma xam mbàkkol war naa jaral mu jóge ci max mbaakol ba Kébémer defarub diggante foofu salawaatullahi salaamu alayhi mu ngi wax ne ki nga xam ne day fen ngeen baax na ci baat bi ndax noonu la tudd noonu la tudd Fallou Cissé moo daan wax tudde leen baat yi ni mu tudd rek ndax nit ñi xam li ngeen di wax mu ngeen noppee laali dóob <laughs> yal na ko yàlla yërëm kon defarub diggante fen kii ba kee lislaam maye na ko yonente bi aleyhi salaatu salaam nee na laa yaxillu fawqa nee na ab jullit akub jullit ab jullit daganul ci moom muy gàddaay moroomam jullitam maanaam jullit ni moom lu ëpp ñetti fan ah maanaam jullit war ta mere moromam jullitam trois jours wala plus de trois jours muy quatre jours jëm kaw waaye man dama gis penc mi ñu wax ne dama gis penc mi ñoo xam ne dañ naan dootuñu dootuñu tuddante wala bàyyi naa la àdduna ak àllaaxira wala sama yoon nekkatul ci yow loolu baaxut loolu kenn du ko def waaw mu ne yaltaqiyaani fa yacridu haada wa yacridu haada wa xayruhuma allazi bada bisalaam bu ñu mu ne ñuy daje ñoom ñaar kee du mooy jëm droite kee du mooy jëm gauche bu kee du mooy jëm gauche kee du mooy jëm droite yaltaqiyaani ñuy daje di daje ca marché ba wala ñu daje ci ndab la wala ñu daje ci école ba wala ñu daje ci entreprise ba wala ñu daje ci société ba walla sax ñuy daje ba Makka di daje ca Kaaba ga di daje munaaga Arafa fa yaaradu haada wa yaaradu kii di du mooy gauche kii du mooy droite kii du mooy droite kii du mooy gauche nee na loolu warta nekk loolu warta nekk fa yaaradu haada wa fa du haada nee na su boobaa bu meroo mi amee ka gën ca ñoom ñaar ka mooy ka njëkk ne morom ja asalaamualeykum su meroo amee ka njëkk ne morom ja asalaamualeykum gën waaye léeg-léeg nga ne waa ji asalaamualeykum mu ne këj xamul li xew waaw asalaamualeykum mu ne këj kenn morom ja asalaamualeykum mu ne këj loolu yonent ba nee na daganul salawaatullahi wasalaamu alayhi ñaara ngi nii kon meroo nañu waaye ba noppi yaltaqiyaani ñuy daje baatu ñuy daje mooy dafa am luñ bokk mënuñu koo seddoo ba noppi bëgg a meroo loolu boo ko dee jël jëkkër ak jabar léeg-léeg euh, maanaam euh, ñaari wujju noonu la ñuy mel yaltaqiyaani mooy ñuy jëlug ay kii aye boroom kër gi ñëw ñëw néegam kii aye borom kër gi ñëw néegam waaye borom kër gi du mën a waxtaan ak kii du mën a waxtaan ak kee rida haazi yahiiju bi saxti haazi itaabun daaimun fi leylatayni arab ba amoon ñaari jabar ya ndeysaan tijji boowuñu arab ba amoon ñaari jabar tijji boowuñu mu ne moom dafa jàppoon ne bu takkee ñaari jabar bu ñu dañuy juboo ba mel ni ñaari xar yu jigéen ndax ñaari xar yu jigéen ñaari mbëkkante bëriwut xar yu góor ñooy mbëkkante may xar yu jigéen li ñuy mbëkkante bëriwul mu ne moom bi muy takk ñaari jabar daa defoon ne ñaari xar yu jigéen lay am moom mu doon xar mu góor mi mu ne waaye safaan ba moo am rida haasi yahiiju bi saxti haasi nee na fu mu fexee ba aawa mer rek ba aawa bëgg rek nee na mbégteel aawa mooy merloo ñaareel nee na bu fexee ba ñaareel bëgg mbégteel ñaareel mooy merum aawa ma ne ko foo jëm <laughs> rida haasi yahiju bi saxti haasi mu ne itaabun daaimun fi laylatayni mu ne wong wong laay fanaanoo mu ne fum fanaan kookaa ngay wong itaabun daaimun fi laylatayni waaw xuloo rek ak yeddantee ko wong ndeysaan mbokk yi islaahu zaatil bayni yonent bi lim njëkk a wax foofu mooy nanu fexe ba réeroo bu mu am sunu diggante ban jar ñuy sol dal di defar waaye waxoon waxaat na lu am solo salawatullahi wasalaamu nee na turadul amalu fi kulli thnayni wa xamis nee na sunu jëf yi li nu woor ci euh, semaine bi li ñu saraxe ci semaine bi li ñu julli ci semaine bi doxu bokk zikkar yi saraxe yi waaw euh, projet yi financement yi gasum teen yi Euh, saraxam ndox maanaam lépp lu ñu def ci lu baax rek alayhi salaatu salaam nee na jeudi la ko malaaka yi jël bàyyi ñu def jeudi vendredi samedi dimanche lundi ñu del siwaat kon lundi ak jeudi la malaaka yi di jël si sunu jëf yi def ko ci conteneur yi yóbbu ko ca secrétariat ba ñu recevoir ko damay misaal waaw ñu jël sunu jëf yi waaw jëfi waa Dakar ak waa Cilma xam naa kool ak waa ginnaaw raay ak waa caaro yak tabarkal fépp rek waaw ak waa Pikine <laughs> nee na jeunes yi lañ koy jël yóbbu vendredi samedi dimanche lundi ñu del si lundi mardi mercredi jeudi ñu del si waaw di di yóbbu rek nee na fa yaxfiru llahu li kulli mriin laa yushrik bihi shay'an mu ne képp koo xam ne bi sa jëf ñëwee sa dossier bi mu ñëwee bokkaale nekku ca bokkaale nekku ca seeti woo fi gisaane kat te koo fi juxur juxur pettaawuloo waaw yenn xeeti gisaane yi demoo ca ah wutuloo yàlla moroom wutaloo ko nawle ah waaw bokkaale woo fi mu ne jëf kooku moom dossier day jàll bépp dossier boo xam ne malaaka seet nañ ko gisuñ ca bokkaale dossier boobu day jàll ñu ne ah, mu ne benn dossier rek moo dul jàll benn dossier rek kon ñaar dossier moo dul jàll dossier bi am bokkaale du jàll waaye ki nga xam ne it euh, dafa am ko meronteel ilamruun kaanat baynahu wa bayna axi shahna nit koo xam ne koñ bi mu dëkk am na kum fi xolool ba duñ tuddante wala kër gi mu dëkk am na kum fi duñ tuddante entreprise bi mu nekk am na kum fi xolool ba duñ tuddante wala sëy bi mu nekk am na kum fi xolool moo xam goro la moo xam jëkkër la moo xam mujj la mbokk yi xool leen ni yàlla bañ a ñaar ñu jubóo diku xool leen yàlla nim bañ ñaar ñu jubóo diku bañ a leen seen jëf soxlawuma ko dem leen ngeen jubóo ci waaye xool leen ni seytaani liggéey ba pénc mi fukki nit ak juróom yoo dajale juróom-ñettee dañoo jubóo diku allahu akbar fukki dajale juróom dañoo jubóo mbokk yi maa ci miin kunoo si sunna niñ koy defee dimaas bu jot ci waxtu wi ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa maa ngi ci islaahu daatil bayni te mooy defar ab diggante waaye yunit baa ngi koy laltaayal ab diggante nan fexe ba ba mu yàqu bañ koy defar nañ fexe ba ba mu yàqu bañ koy defar waaw xaadim sàmb daf cee mas a dund lu neex waaw xaadim sàmm daf cee masan ne ci lu neex su dul moo ko defit soriwu fa nee na ñaar lañ ñu bokk ndey ak bàyyi toog ay at tuddante toog ay at tuddante wuñu nee na mag ji mag ji daa di may seenub géwël euh, paasu màkka paasu màkk géwal ba jël paasu màkk ba dem jox ko rakk ja ne ko sa maga la ko may mu wedd ko mu ne ko mosoo maa xam ci ah li doy na waar mu ne ko waaw bul yem ci doy na waar nag ku ku ku jubóoju ko sa mag nangami at mu xëy benn bis ak ni màkk mel mu may la billet pour nga dem man de suma doon yow duma ëpp ngor danaa dem ba ca moom ne ko grand jërëjëf walla ne ko frère jërëjëf mu ne waaw kon baax na gunge ma ñu ànd gunge ma ñu ànd mu ne ko jàppal bés mu ne ko samedi ñu dem mu daal dem ca ka joxe woon billet ba ne koy de sa mag ji diw nee na euh, def laa bëgg nuyu si mu ne ko man diw man mu ne ko diw meen koy waxal mu ne ko baax na gis sàngam daal nee na nga seet si ko ndax li ngeen nekke daal nangam ki nàngam léegi nag su ma doon yow du ma ëpp ngor waaw xaadim sàmm nee na mu géwal bi dem ca kële ànd ak moom pour ñëw ci kii kii itam toog ak i xaritam ak yooyu bi ne ba jàkkaarloo nag nga xam ne fi nekk ni moom caaxaan wi ne dëgg des rek mu jóg ndeysaan ñaala gay naa ko suq mu ci bàlla ko barke ji mu ci ñaan waaye gis nga technique boobu mu def lislaam du ko jàppee aw fen waaw yonent bi moo ko waxoon ki nga xam ne day defarub diggante yàlla du ko jàppee aw fen donte fen na nag waaye du ko jàppee fenkat loolu jar na kon ku ci nekk ci ñun nga fexe jaamu yàlla googu waaw eh, sunu jigéen bële ca itali waaw soxna jeetaal ma nga ca Coloniano waaw yàlla na ko yàlla yokk wér dama fa am conférence saan mu ne ma man de bëgg naa loo ma fi doxal ma ne ko lu mel nan mu ne ma defarub diggante ma ne ko loolu jar na jóge Sénégal ba Italie mu ne ah ma ne ko jar na jóge Sénégal ba Italie ndeysaan mu ne kon baax na waaye bi mu nu bi mu nu boolee ñaar ñooña toog ñun ñëpp nu toog ñu wax ñaari baat ak ñett ku ndaw ko jóg jox jóg mag jox mag ja loxo mag ja jox ko loxo ñu ànd xëm ah tabarkalla ma ne ko lii jar na jóge senegal bokk laa niyaanu waaw ba Italie jar na jar na ko waaye moom tamit loola mu def tuyaaba ja rëy na lool ñu bare nga koy def ci penc mi nag damaa def ñaar ñii rek waaye bari na ci diggante yi mbokk yi fu waay dégg ab diggante bu ñagas solo saw daal te te ànd ci ak pédagogie waaw mu ngoog mu ne ci benn addis bi te mooy bi ci mujj ci bindub tey bi laa yaxilu li muslimin an yaxjura axaahu fawqa thalaasin fa man hajara fawqa thalaasin fa maata daxala naar allahu akbar alayhi salaatu salaam nee na daganul ci ab jullit muy gàddaay mbokkum jullit ni moom lu ëpp ñetti fan mu ne ku meroob morotam meroom meroom meroob morotam jullitam lu ëpp ñetti fan bu ca deexee yàlla duma ko hmm? waaw mu ne bu ca deexee yàlla duma ko waaw laa yaxilu lil muslimin an yaxjura axaahu fawqa thalaasin fa man hajara fawqa fa maata daxala naar képp ku gàddaay sa mbokkum jullit lu mat trois jours jëm quatre jëm une semaine nit ñoom di ko def ba am weer am na ñu koy def at am na ñoo xam ne 2012 euh, ca alternance bu njëkk ba lañ meroo woon <laughs> ba léegi juboo gunu waaw ba léegi juboo gunu am ñoo xam ne ci jamono yi euh, élection yi Abdou Diouf yaag Ablaye Wade ci lañ meroo ba fii toog jubooguñu am na ñoo xam ne marché bi gendarme mujj joué ak léegi moog diw juboowuñu <laughs> damay misaal rek nag damay misaal rek nag yu bare bare bare fi nekk nii ci pénc mi gis nga ñàkk jubo gi am ci pénc mi ci politiciens yeeg yu nu demee jàppal bàyyil def na ko defu ko moo ko wax waxu ko moo ko def defu ko yooyu mën a jur ci ñoom ak jubo diku ba mën a jur ci xeet wi ay commentaire ba commentaire jubal jural leen juboo diku yooyu yépp ci pénc mi lees war a daw la lees war a bàyyi la lees war a daw la lees war a bàyyi la rawatina bi nga xam ne dañu nekk ci weeru rajab te yonent bi te alxuraan wax ne falaa taslimu fiihinna anfusakum bu leen ci tooñante ma ne bu rajab moo kon kon bu ñëwee du ñu tooñ ku ñu tooñ ñu baal la du ñu xeex ku ñu dóor ñu baal la rek tabarkàlla du ñu saaga ku ñu saaga ñu baal ko mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot ak seen i forekate jataay bi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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu